Bienvenue à toutes et à tous, chers amis internautes de www.senclic.com nous sommes avec Pape Alé Samb di responsable politique fii ci Derklé Pape maa lay nuyu. maa tey da nga organiser euh, ñu gis nga mobiliser dajale ay nit sa biir kër lan moo ko waral. Euh, en fait déjà salaamaaleykum maa ngi nuyu yëpp di nuyu seen seen sant di nuyu tous les internautes di leen di di leen di leen di leen euh, euh, jaajëfal jaajëfal di nuyu ñi fi ñi fi yëpp ñi ñi ànd ak man ñi jot ñëw ak ak ñi jot jotu ñëw. en fait lii ak ñu organiser lii c' est juste pour saagar mi mi militants yi ak delloo njukkal waa commune Dieuppeul commune commune Dieuppeul Derklé parce que gis nañ seen taxawaay si si si si campagne bi taxaw leen taxawaay vraiment bu bu bu mucc ayib loolu moo taxaw ñu ñu ñu wati nii aussi tamit ñu gis la depuis 2009 yaa ngi ànd ak son excellence monsieur Macky Sall ba léegi yaa ngi xeex di xare di xare di xare c'est-à-dire pourquoi nga ànd ak moom lan moo tax nga choisir Macky Sall boobu la. écoute euh, bon euh, tout tout au début tout euh, au début président président injustice bu mu sibiroon au niveau PDS suñu xarit Adama Faye ne na ci de manière naturelle et spontanée ñu ne dañ dañ ñu sot ñu am nañu jàppale suñu xarit loolu loolu début bi vraiment loolu loolu moo moo si jógoon parce que vraiment bëgg ñun bëgg ñu injustice bi. justice boobu donc dañoo comme ni moom boo boo matee nii ba jaaxal ba ba ba ba ba jaaxal c'est fekkee des na la benn benn benn benn nit nit la gëmee gëmee ni j'ai plus le droit de de de de d'abandonner ou moo moo tax ma dugg ci politique bi dem. aussi yaa ngi ko doon soutenir euh, yàlla def na ni gagné na élection yi ci jàmm ak salaam ban satisfaction nga ci am. ok mais mais ça c'est un total satisfaction bi woon ne que première bi mu ñëw fii dama ko ne première dame bi dinañ président la commune de Dieuppeul nekk sera marron te te loolu vraiment yàlla dimbal nañu ba am am amuñu ci gàcce am amuñu ci gàcce amuñu ci kersa ba prix bi ñuy gagné commune bi on a gagné tous les centres tous les bureaux de vote te te te là là c'est immense une immense satisfaction vraiment. ñu gis ne aussi tamit bi élection yi jeexee. ñu ne Macky Sall gagné na def nga porta à porte remercier ñëpp tey nga dajale leen ñu gis ko ci mel ni Diène nga xam ne lutteur la di champion lan moo dox sa relation ak euh, commune Dieuppeul bi ak ba ci seen nga xam ne moom doomu jëppal. Eh, écoute euh, Diène c' est même pas un lutteur c' est un c' est un petit frère c' est un frère vraiment honnêtement c' est un frère relation yu ñu am ay relation euh, euh, mag dëkk fii non c' pas une histoire de bëri mbër la star la tout ça non non vraiment c' un jeune frère vraiment que j' apprécie que j' apprécie beaucoup et comme tant tant am na bébé bébé guy gi qui est là y' a y' a a aussi. te te Max ñu ñëpp ñu ñëpp vraiment ñu ñëpp ñëpp sama sama sama sama sama j'ai d'excellentes relations avec d'excellentes relations moom dafa ñëw nii grand nu mu demee sax naka campagne bi vraiment manqué naa fi tout ça voilà ce sont des relations de frères qu'on a ensemble ok ñu gis ne aussi teewam bi est-ce que duñ ne makiste la parce que xam nga jeune bëri boo ko lu nekkee nekk star da ngay nekk pour le Sénégal buñ gisee teewam fii est-ce que duñ ne jeune Macky Sall la doon jàppale loolu di nga ko toog di nga ko laaj mais man am naa sañ-sañ wax ni c'est pas Macky papaliste la <laughs> n'est-ce pas n'est-ce pas vraiment suñu suñu suñu nit la te fu ñu ne rek gëm naa ni moom moom dina dina dina si jàppale et de manière vraiment désinvolte sans intérêt si rien su su ma su ma ñëwoon quatre du matin ma ne ko booy vraiment am na quelque chose il va venir tout de suite maintenant te te et ça ça ça ça loolu vraiment euh, ça ça ça ça me va daw kër moo tax lépp lu ñu am lépp lu ñu am leen ànd bo bokk bokk ak moom wax na war naa ko suñu ñaan sama loxo sa loxo ñoom ba ba ba àjjana si kattan yonent. Diène mais ma permettez ma ma poser ko deux questions waaw mun nga Diène tey dañu la fekk la ci euh, ci organisation bi nga xam ne Pape Alé Samb exemple def na ko di responsable politique nekk fii ci jëppal Derklé euh, tey lan mooy sa taxawaay ci ñëw bi. waaw avant ma wax dara xam nga maa ngi leen di nuyu di nuyu commune jëppal Derklé bi di nuyu Sénégal yëpp xam nga fii mun naa ne su ma fi teewee dama fi war a teew parce que mën naa ne Pape Alé papa la si man waaw ah, sama papa la fii la juddoo man sama maam si asek naa fi xam nga ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ ñu fi relation boobu la ñu am avant ay politique sax wala dara avant maa bëri comprendre dañ fi daan ñëw mu ñuy jàppale ñu dem ba commencé bëre mbapat mu ñuy jàppale xam nga ñu dem ba commencé dugg arène di ñuy jàppale ba léegi nii amul suñu combat yoo xamante ne dugalu ci loxoom regroupement yeeg lépp mën naa ne moom moo koy res lépp daal ak bépp ci gox bi yëpp képp kuy bëre da ciy def kéemtalaay kàttanam di ci sonn te boobu boobu yàgg na sax naa ne waaw donc sa teewaay du teewaay politique mais da ngay ñëw sa mag responsable politique donc da ñëw soutenir ko en tant que Euh, fils en tant que jeune frère en tant que aussi tamit koo xam ne yàgg na leen jàppale ci yenn activité yu bëri ngay lutteur ba pare am combat ci diggante ak Coins ñu gis la ci activité yu mel nii cest loolu lan lay def par rapport ak sa combat bi nga xam ne yaa ngi am. waaw comme mën naa ne nit moom noonu la ku nekk daal xam nga man bu ma xewlee da ciy teew kon moom bu xewlee dama ci war a teew mën naa ne man politique sax xam nga saruma ci mais moom moom comme li nga wax rek du makkis wala dara mais Pape moom fépp mu nekk maa nga fa waaw te muy man ak samay moroom yu bëri jëppal derkale xam nañ loolu ak combat bi ñuy waajal yëpp xam nga sunu combat la combat am la comprendre nga ñu ñëw di ko waajal xam nga di ñaan yàlla ñu dem seeg jàmm rek yàlla may ñu ndam di ci wootam xam nga commune bi yëpp ñu ñëw jàpp si daal mais moom xam nga ñëpp rafetlu nañ liggéeyam moom ñëpp lay jàppale bàyyiwul kenn nekkul dama ko wax ngir dafa taxaw wala dara mais loolu dafa yàgg daal démb la waaw euh, bëre gis boo ñëwee stade da nga koy yëngal waa commune bi yëpp jàppale la soutenir la nga ñëw bëre ko ci fulla ak fayda bàqu neexal stade bi daan ko ci benn ci ci ci ay minutes ay waxtu yu néew tey naka nga préparé sa combat bi nga xam ne yaa ngi koy waajal sa diggante Quench da ngay ñëw bëre comme d'habitude beneen jéen bi ñu daan faral di gis moom la ñuy gis wala dañuy gis plus. waaw xam nga àdduna moom ku ci nekk looy def rek dañ ciy ñaan yàlla yokkut quoi xam nga incha allah lépp ñu doon def instant yi jàppale wàllu ñu ndam li rek. incha allah.